marhaban teg loxo mi ñu teg xibaar bi di Pape Alé Niang yéeni kaay libération xëy di xam le ni jur coow lu rëy suñu naataango yi di xam le ni association di maanaam mbootaayu taskatu xibaar yi taxaw tem ne leen rek bëgg moo di ñu teggi loxo kii di Pape Alé ni mu gën a gaawee sans condition moom taskatu xibaar bi bu ñu sukkandikoo ci coordination des associations de presse di CAP bokk na ci lu waral ñu daal ya nga xamante ne amu xamle ni justice bu Sénégal dafa jàpp ne fësal document yu ni mel duñu def lu dul indi li suñu wàllum défense nationale loolee waral vox populi nañu procureur de la république daal dinay justifié di maanaam xamle ana lan moo waral mu sàkku ci waa sûreté urbaine ngir ñu teg loxo Pape Alé ci ab bataaxal mi yéene kaa vox populi daal faram-fàccee procureur daal na ci xamle ni daal dinañuy seetlu ne jamono jile tembe ay attaques yu tegut ci ci procureur bi moo di ay kaddu yu ñu jibal fan yi jëmale ko ci officier généraux yi doxalin gu ni mel du def lu dul daal di sappe moral troupe yi rax dolli itam indi pëccëxoo ci biir réew mi di maanaam menace ordre public bi procureur bi ne lu ni mel nag moo waral mu daal di sakku ci commissaire bi ñu dënk lépp lu jëm ci wàllum urbaine mu ubbi ci l'enquête nu mu gën gaawee waaye bu ñu sukkandikoo ci yéeni kaay le vrai journal mbir mi nag mënuñu ko jël rek daal di koy gàll ci loosu ko ci rapport interne enquête gendarmerie nga xamante ne daa senn jëmale ko ci ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr li ñu war a def kay bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi moo di ñu dem lañ bët mbir mi feneen ndaxte taskatu xibaar bii di Pape Alé Niang duggut benn yoon ci biir gendarmerie daal di ubbi seen ay tiroir jot ci ay documents yu ñu classé secret ak nu mu manti demee daal yéen kaayu enquête mu ngi xam le ni taskatu xibaar yi ñoom ñëpp daal nañuy mànkoo def benn dànk bootu ci ginnaaw pap Alé Niang ci ndaje bu coordination des associations de presse doon amal jëmale ko ci libération Pape Alé Niang daal dinañuy woo gi ngir mu sàmmonte constitution bi article huit ak dix ya nga xamante ne dafay garantir ak ak yelleef jëm ci joxe ay xibaar waaye itam liberté d'expression yéene kaay bés bi la jour nañu teg loxo bi ñu teg loxo Pape Alé Niang dafa mujj soppaliku doon ab pataar bu tàng jir ci loxo gouvernement bi lu ni mel sax moo waral bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi waxatuñu ci wàññite njëg yi ndaxte bii la arrestation Pape Alé moom la ñuy waxtaane fépp rax si dolli itam ay kilifa yu ci addu ngir wane ni ñu ngi ci wetam di koy jàppale ci biir àdduna warngal këpp ci biir le contexte bi ñu njortul président Macky Sall ñetteeli candidature te coow daal di ci tab bi bi le jour mu nga xam ne ni nguur gi daal dinay ubbi ab front bi nga xamante ne du ci bari ay soppe leneen li yéen kaay yi xëye moo di mbirum traficu faux billets tribune nañu ci xëtam mu njëkk police daal dinay def opération bu am solo fale ci Thiès ginnaaw Bougazelli yéen kaa groupe des médias gi mu ngi xamle ni doomu ministre d'état bi di mbay Ndiaye moom la ñu teg loxo ci mbirum yooyu les faux billets bi nañu ñu ngi koy arrêté mu ànd ci ak juróom benn ci ay doomi aadama ñu fekk si ñoom nag lu tollook benn milliard ci faux billets bés bi le jour déggal xibaar bi nañu ginnaaw Bougazelli doomu ministre d'état bi la di Mbaye Ndiaye daal dinay daanu benn milliard faux ci coupure dollar ak euro la ñu daal di fekk ci moom Cheikh Issa lay wuyoo suñu naataango yi ne ñu daal di ne sakku ñu jéggal ko ndaxte nee na ay jafe-jafe yi mu am ci wàllum dund moom la bëggoon a régler ndar keepe kook yenn kaay l'observateur mi xëyee ab jàngat jëmale ko ci dette publique bu Sénégal ci njeexitalu juróom benn weer yu njëkk yi ci atum 2022 yéeni kaay mu ngi artu di xam le ni Sénégal mu ngi ci zone rouge bu UEMOA ndaxte daal dinañuy romb rëdd bi nga xamante ne moom la ñu rëdd ci biir UEMOA jëmale ko ci wàllum dette publique ak stock global mi toll ci fukk ak ñaari junni milliards yu tekk juróom benn téeméer ak juróom ñeent fukk ak jurom benn millions yi francs CFA ngeen jëf